Tambour Louga loo euh, ni ko waykat bi di waxee ñetti koñ laa fa xam euh, koñ bi nag ñu leen di wax wala boog tur bi ñu leen di wax euh, bokkul ci sanc ba noor wala sud wala sax montagne lu ci mën a am dañu fay fekk Thierno Fall mu gën ñoo yaataral ci de quoi est-il le nom Thierno ginnaaw bi ñu la nuyoo ñu bàyyi la nga wax ñu leen nga ñu indil tey. jërëjëf euh, ñu ngi leen di nuyu waa plateau bi yëpp di nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan fii ci diwaanu Louga ak ci Sénégal yëpp ñoo ngi fii ci quartier Marbat suñu teewaay fii nag li ko waral mooy fexe nuñ leen xamale ak euh, quartier bi nga xamee ni si bokk na ci quartier cosaanu Louga yi du ñu def rek lu jul euh, dem xool ci askan wi kenn ku nga xamee ni rek dinañu mën a wax quartier bi ñu nekk ndax xam na lan mooy tur bi lan moo ko indi salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñoo ngi fii ci quartier Marbat lay laaj mooy Marbat. Euh, ah. quartier bi fan la tur bi fan la jógee. boo ah, ci li ma dégg boog pour pour ma wax ci dana xaw a jafe mais xale la mais nee daral gi lañ ko tuddee quoi ba daral gu ne woon fi Marbat veut dire euh, daral ci naar. waaw mooy mooy mooy mooy mooy daral marbat jërëjëf sëñ bi kontaan nañ euh, jërëjëf waaw Babacar topp ma ñu xool ba xam dinañ am keneen salaamaaleykum waaw sëñ bi na nga defaay ñu nekk euh, liggéey bi alhamdulilah quartier bi ñu nekk Marba tur bi laa bëggoon xam fan la jógee tur bi kay euh, yaakaar naa dara dara bala xanaa dara xar yi hmm. waaw si mais à part ça moom ma ci lu bari <laughs> euh, hey Thierno. maa ngi lay ziar bu baax. waaw Mass euh, tey dañuy dellu si ñu ngi woon ci kër Serigne Louga. waaw nga indi ci euh, ci Louga nga indi ci tegtal yu wóor yu nga xamee ni si ñëpp jàpp nañ ko. tey Marbat fi nga xam ni fa nga cosaanoo mooy sa dëkk. mooy sa mm, koñ moom lañ bëggoon a xam tur la jógee. waaw Marbat euh, ak daral la woon. waaw daral la gu nekkoon fi gu mag goo xam ni naar yi fi la daan wàcc seen gileem yi. di fi jaay ñu ñu orienté wu tuuti ndax ñu am lumière bu baax. maanaam daral la woon. boo xam ne naar yi fi daan wàcc seen giléem yi pël yi di fi wàcc seen xar yi ak seen bëy yi di fi jaay ndax marbar fii quartier bi boo gisee ci coxna la bokk waaye marbar googu daral gi mu nekkoon ba tey ba tey daral gaa nga fi nii mais boobu daral gu mag la woon boobu rek moo fi nekkoon ci Louga ci la nag ci la def après koñ bi marbar fekk am na ñaari équipe yi fi newoon muy gel euh, gelawaar ak xeme ci lañ ko fusionné en 1986 tuddoo ko ASC marbar jërëjëf euh, Serigne Mass jërëjëf euh, suñu mbokk yi ñuy seetaan euh, Mass dañ lay bàyyi nga dellu ci liggéey bi di la sant bu baax di la gërëm jërëjëf Babacar kon du ñu def rek lu dul doxantu ba ca daral ga ñu xool mag ñi nekk foofu. ñoo ngi fii nga xamee ni mooy daralu Louga. Euh, nga xamee ne rek moom la ñu wax ni ci moom la turu quartier bi nga xamee ni su quartier la ci Coxna soqi ko dañuy woy rek laaj ñi nga xamee ne ay ancien lañ yàgg ci euh, dara gi. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw yow lan nga ñu mën a indil ci turu marbat bi. marbat moom marxaban xam nga euh, la gën a jege xam nga gën a gën a moom mooy bisimilah mooy dalam mooy mooy marxaban mooy marbat bu dee après loolu moom. jaayukaay la dañ fi jaay fas di fi jaay wi xaar di fi jaay mbaam lépp la fi daan jaay ay gileem ki nga fee ca kanam taxa tubaab mag moo fa nekkoon ci lafa yi tabax yi fii ay taab daan gaare woon gaara tubaab fii la ne woon booba taxa fa la nekkoon taxa tubaab mag moo ne foofu waaye pël ak naar ak ñëpp fa daan jaay ak law bay li bu dee tur bi nag noo boo daal signifié bi daal mar mar xamat man daal ci tubaab ci naar daal mar xam mooy dalal mar xam bisimil maanaam daal ma la bis ma la ma la dalal waaw jërëjëf jërëjëf euh, suñu mbokk téléspectateurs yi kon tey loolu lañ leen indiloon ci euh, gox bi nga xamee ni si moo di Marbat kon su ko defee rek diñ leen di jox di daje ba beneen ci beneen émission ñu faram fàcceel leen beneen tour ci beneen quartier jërë ngeen jëf shukran làkk ahsanta mun nañ wax lool ne ndax comme ne marhaban la fa la fa la jugee <laughs> ku ma ku ma dégg foog ne dama li may wax dama cee xam lu bari dëgër fit rek moo ma jàpp dama sànq dégg alaaji Malick mu wax euh, marhaban mu ne ko mu ne ko shukran ma xam ne foofu la voilà boobu parce que marhaban bikum mooy dalal jàmm mm. bienvenue moom laa wax léegi Ablaye bi moo koy dalal mm. boobu xaw ma sax ne marbat ndekete ci loolu la jógee parce que maa ngi woon bi te mm. yàlla moo lay may flair yenn saa yi nangul naa la ko de euh, boo ko nangoo rek mu baax boo ko nangoo rek mu baax mi ngi noonu donc sagesse boobu Malick dafa am kilifa gu mag ci réew mi Oustaz hmm. Aliou Sall ndeysaan bu ma gisee dafa ma naan marhaban wa saahibal jalaal ndeysaan xam nga loolu fu mu jóge hmm. roi euh, Mohamed euh, astafurlah bàyyi bi fi nekk tey Mohamed six hmm. Mohamed cinq astafurlah Mohamed cinq Hassan deux moo fi doon ñëw soleil defoon une bu yànji doon ko ko dalalee jàmm jamono yi ñuy def yeneen exercice revue de presse ak affaire yooyu waaw ñu arabaloon ko nag ba léegi moom daf ko jàpp ba léegi bu ñu gisee sax noonu la ñuy woowante waaye loolu daf lay delloowaat ci sage maolick sa comité sage bi dafa diis trop mm. hmm? <laughs> aywa dinañ ci waxaat mais ñu ñëw ci sujet bi sujet bi am nañu koy contesté mais ñu dellu si waat ci sujet bi marhaban boobu di jënd si euh, ci daral bi ñoo lay ñoo lay wax marhaban donc mm. loolu moom xam ne par déformation moo dem ba jur ba jur euh, Marbat. Mhm. Euh, mais Marbat comme ni ñu ko waxee ci quartier Coxna la bokk yaa ngi dégg waykat ba mu naan. Mhm. Lougaloo yu muy yaatu yaatu ñetti koñ laa fa xañ. Mhm. sanc ba nord sanc ba sud. ak altieri montagne altieri montagne Coxna Kër Serigne Louga. Coxna googu nag euh, fa la Mar Marbat nekk. mais Marbat bu ñu koy wax ku ko dégg rek sa xel day dem. ci la grande ASC. ASC Marbat. ASC Marbat nekk ASC bu nga xam ne. Euh, quartier bi ñëpp dañ ci doon identifié wu. Mhm. mais mu nekkoon équipe bu nga xam dafa amoon moyen parce que ku nekk xam na ne ci wàllu euh, tukki. Euh, mhm. moodu moodu yi ñu ci bari Louga ñoom ñoo njëkk a nandu yoon bi. donc diaspora bi ñoom ñoom dañ ci amoon doole trop. Mhm. sànce. maillot yu rafet yu jógee Europe. moom lañ daan sol. coupe boo fa teg ñu jël ko zonal coupe du maire départemental régional national loo fa teg ñu jël ko te c'est vraiment. Euh, li ñu tuddee ASC Marbat mooy symbole ASC mhm. association sportive et culturelle mhm. donc sur le plan culturel aussi mhm. dañ doon rayonner loo teg parce que man j'ai participé euh, ci ci jongante yu nga xam ne euh, au niveau zonal dañ doon joŋante ci wàllu théâtre ak donc man nekkoon naa meilleur acteur du département de Tivaouane nekkoon naa meilleur acteur de la commune de Mekhe donc xam naa bu baax lu may wax mais non yow tamit man foofu damaa mën a siim mën a def lu ne euh, gis nga macha allah <laughs> donc ASC bi uh-huh. euh, sur le plan culturel aussi rayonnement bi nga xam ne moom la doon am mm-hmm. loolu moo doon symbole mm-hmm. euh, vraiment nawetaan dañu mën a nawetaan mm-hmm. dañ doon gagné lu nekk ci wàllu culture ak ci wàllu football. Mm-hmm. mais euh, ci wàllu football aussi mu nekkoon euh, équipe bu nga mm-hmm. xam ne. Mm-hmm. dafa meññ ay joueurs yu mag. Ablaye Diagne Faye génération 2002. Marbat la jaar. Mamad Gueye. moom tamit marbat la jaar. donc ay internationaux yu bëri. soqeekoo nañu ci. équipe bu mag boobu di di di di ASC marbat mais jamono yi. dañu am une traversée du désert quand même. depuis 2002 pratiquement gagné wuñu presque dara. 2015 la ñu gagné coupe du ma coupe de la municipalité. ñoom ak jàkkaarloo ñoo daje woon ñu doon jàkkaarloo 3-1. mais vraiment ñu ngi traversé ay ay ay yu difficile. donc vivement le retour du grand marbat. jërëjëf jërëjëf merci beaucoup El Hadj non xibaar yi la ñuy dem ak Ibou Diouf lañ ci ànd parce que li mu wax ci ñu bokkoon <laughs> région am na beneen équipe. maa leen ci xibaar yi <laughs> dañuy dem RFM. <laughs>